gis naa ñu bëri kontaan ci El Keita li ma def démb ci télé bi vous avez rien compris loolu c'est les aléas du direct loolu c'est les risques du métier taxul ma arrière yotaa ci gis nga nit li ngay def da nga ciy passionné da nga ciy am passion man yëfu seytaane sama passion la maanaam maa dégg lii gars yi nee nañ jël waxi kii teg ko ci kaw waxi kee wala jël waxi kii jaxase ko daal di koy yow yow daal di koy yóbbul kële xool kee lan la ci wax ma jël yóbbul kee loolu man sama passion la waaye seytaaneeg ay dégg naa kii wax na lii kii wax na lee noo gisee lii loolu bu jeexee ci animation man mi nga xam ne sama jàng soriwul mënuma wax damaa dër aw ma xam-xam waaye léegi man la lay animé waaye yéen encouragé leen ma ci ma ne yi ngeen xamul woon yu bari may tax ngeen xam ko may laaj kii jël kee jox kee Elaj Keita moom aw ma lu may wax ak moom lu toll nii awma ko bàyyi naa ko Tarba Mbaye nañu lijjanti seen problème Moktar ba duñu wax seqatuñu wax ñaari Baye Fall yu xuloo maa ngi koy soo gis te Baye Fall du soo guddi ñoom ñaari Baye Fall ñoom ñoom xuloo ndax lan soo guddi loolu na ko lijjanti